mu ngi ci finition yi mais bi ñu commencé ci plateau bi la ko defar li c'est très joli ah euh, na ko nu nga ma defar benn ah nu nga ma defar benn ah c'est très c'est très très très beau ah, comment tu fais pour dessiner pour am euh, euh, pour nga pointu ba mën a defar loo xam ni c'est comme photo li parce que li doon la rek boo xam ne suñu borom moo nu ko may. Mm-hmm. may yàlla waaw ndaxte jaar école des arts ga mm-hmm. mais alhamdulilah daal dem nañ ba léegi lu nu liggéey rek li ñuy njëkk laaj mooy. Mhm. fan ngeen jàngee lii. waaw parce que à la base photo Youssou Ndour bi nga ah. reprendre. waaye et c' est très beau. waay moom laa reprendre moom laa reprendre. ah Youssou de ku ko dessiné dessiné ku baax. ah waay. <laughs> ak ak gaaw ci boole la ak Mara Dieng. waay mais dessin bi dafa am lu ñu si jublu. waaw ah, waxal waaw dafa am lu ñu si jublu mais table bii nii. man mii la invité daa am lu ma ci jublu de. oh waaw. <laughs> xam naa ne passe au bureau à 15 lu suuti daaw xama tëgg jibi woyal yu seet di nga tabax de Serigne Bamba voilà donc loo ci jublu waaw liñ si jublu nag dafa am tableau boo ko jiitu waaw mooy tableau bële laa bëgg indi ñu expliquer ba pare bi mooy suitam nag ay rapidement est-ce que vous pouvez amener le tableau s'il vous plaît derrière ah waaw sëñ Khadim undi rek <laughs> nga yar biir <laughs> man xaadim a yéen sax bañ di bañ ay caméraman seeni kollu rëy na <laughs> te dañuy baat rek kenn musul gis loolu tegal nañu ko nii ci kanam xaadim Sénégal gis la waa xaadim eh, yaa bañ a feeñ sax sa biir gërëm leen Youssou ak gaaw ci ñëwal 15 heures <laughs> man de xam naa tey kenn du ma jot 15 heures. <laughs> waaw dessiné nga ku baax. gars yi xàmme Youssou Ndour lu ndaw li ñu leen wanoon internet. mais oui ils ont réagi. wa ah, ah. donc lii tam yaa ko defar. noir et blanc. c'est très beau yow yaa ko dessiné. bii maa ko defar mhm. waaw mooy suite bi. je sais que y a plein de gens yu seetaan te bëgg nañ la euh, contacter pour nga defaral leen yu baax euh, lan mooy sa contact. waaw sama contact donc ba Cheikh nekk na 77. attan 77 247 247. 72. 72 76. 66 waaw 70. 70. 765. 765. 28 32. 28 32. 247 77 est-ce qu'on peut regarder en euh, pour ñu gis ay œuvre am parce que c'est un ndaanaan mais on est content euh, ban message ngay joxe pour euh, pour terminer waaw message bi may joxe nag ci tableau bi laa koy joxe waaw waaw ma ñëw am lu ma si expliquer waaw expliquer ba waaw expliquer nga ni mhm. tableau bi c'est la jeunesse oui ndaxte li li tax ma jublu si jeunesse mooy mhm. jeune jeunesse moom mën a defar réewam mhm. waaw moo tax ma jël exemple si koo xam ni moom depuis jeunesse am ba léegi dafa engagé wu. Mhm. benn affaire boo xam ne ñafe na ko ba téye ko assaame. wallaay mooy Youssou Ndour. ndaxte dama indi yu bu njëkk. Mhm. daanaka sax boo xoolee. Mhm. dama ko def mu mel ni ku nekk si guddi. ça veut dire Euh, moom dafa teel a yeewu. waaw moo tax ma jël ko nii mu mel ni ku nekk si ba pare di séntu loo xam ni. Mhm. jël vision am takk fu sori. fas yéene àgg fu sori daal moo tax ma jël foob yi tamit boole ko ak moom ça veut que mu nekk benn sas boo xam ne xam ne ni moom réewam dañ ko sas mu war a fas yéene liggéey réewam loo xam ne mhm. jeunesse bii ñëw dinañ si jariñu mhm. moo tax euh, œuvre bi si kaw loolu lay signifié waaw lii da see benn micro micro la yor. la micro bi finition bi wax micro rek nga mën waaw. kay wax loolu. c'est blague. parce bi finition bi. mu indi ko mu nekk big xam nga ñun euh, œuvre d'art. Hmm. des fois day indi loo xam ne réalul mu indi ko mu doon dëgg. ok waaw léegi tableau day wax a fait. ça parle waaw tableau bii nag. li muy wax moo bari xam naa lépp mënuñu ko fee détaillé dañuy tënk rek dañuy tënk ah, dañuy tënk dañuy tënk léegi euh, mu micro bi. Uh-huh. finition bi nekk big ça veut dire que way na loo xam ni foo yër si téere da nga koy mën a gis way ni day wax téere. waaw waaw waaw bind na daal. léegi bi si digg bi. Hmm. ça di dire mi xalaat lan la war a jëriñu réewam ëllëg. très bien. dégg nga ma dégg naa la baax sax bi si digg bi waa kay moom léegi bi ma def benn genre picc boo xam ne dafa yëkkati carte Sénégal. moo ne ci ndobin. waaw waaw waaw waaw yi bi uh-huh. yëkkati. Euh, drapeau Sénégal yóbbu ko. Uh-huh. partout dans le monde. moom moo nekk nii écoute euh, xam naa ni li nga bëgg a wax yëpp sax. Euh, bëri na xaju fii parce que ñu ngi wax ni jeex na tàkk. on est très ravi ñu ngi lay wax bonne chance. ah mm-hmm. rappelez numéro téléphone bi pour ñu ko bëgg a contacter pour ay dessin ak yooyu. 77 247. 72 66. 247 72 66. wala 70. 765 28. 32. voilà ku ma soxla. man mhm. na maa fekk sax maa ngi sax ba si région yi maa ngi sax ba Mbàkke. yaa ngi ba Mbàkke waaw am naa fa atelier boo xam sérigraphie tous bâtiment lépp la ñuy def. maa ngi nekk chez Elage Création. Uh-huh. si marché Mbàkke bi ku ñëw rek Issa Décor moom ma nga fa. waaw uh-huh. pour région yi. Uh-huh. bu dee fii si dakaar maa ngi Yoff aussi tamit maa ngi yëmbal. voilà waaw waaw numéro yooyu ku si contacter rek. Mm-hmm. maa ngi nuyu nag euh, sama yaay booy. di nuyu sama chérie Ramatoulaye di. Euh, sama taaw tey la am 10 ans. ah waaw tey mooy. tey koy joxaale ci gâteau bi dañu koy joxaale ci gâteau bi ah. man moom man dama lay gërëm man personnellement. Ah? dama lay gërëm personnellement ndax bett na ma ak tableau bu toll ni Sénégal ah. <laughs> voilà chez moi damay jaay star mais regardez ça c'est moi ah? sama reprise la. <laughs> Djibi euh, pour ñu jeexal dañu indi euh, gâteau bi pour yaay mun nga ñëw fii ah? comme ça ñu woyaale ko. ñu woyaale Adja Adja Adja Adja Degen Chimère ex ñu ciy profité souhaité. victoire et souhaiter un joyeux anniversaire à Babacar Sène donc il vient de fêter ses trois ans. c'est de la part de son oncle donc mhm. nijaayam. waaw euh, voilà donc. Euh, c'est ça bu bu baax voilà dimanche cher. merci alors euh, nuyu itam Adja Bané yaayu yaay Sophie ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal ak ci liggéey bi mu ne on n'oublie pas Ndeye Kumba mbokk ndeyam yaa Barbara ñu ngi leen di nuyu bu baax. <laughs> on vous souhaite une bonne journée dans que scène comme ils disent en Allemagne parce que foofu tam am nañu fay Barbara foofu la nekk dans que scène yaa Barbara. voilà <laughs> Jibi euh, pour terminer Alfi suñu gâteau pare na mooy gâteau bi ñu toggal tey euh, euh, yaa déggéen mbokk ndeyam yaa Barbara suñu gâteau pare na de ah ay daggal suñu gâteau ñu woyal Adja Degen Chimère euh, jibi kontaan nañu donc junj nañu tey euh, euh, li nga xamante ni yaa ngi koy pare muy dixième édition nuit du bazin incha allah le 9 août lay tombeel ca grand théâtre jibi Dramé jàpp na datam keneen ko jàpp nag beneen date ah saw parce que date bi am na solo muy le 9 août incha allah ñun nag jàpp nañu daat ak moom le neuf bu soobee yàlla et que bu ñu waree bu soobee yàlla itam dafay delsi euh, parce que dafay fekk ñu nekk euh, ci euh, préparatif bi waaye na ngeen teel a xottilu teel a tàppalu seen i cuub bu ko defee ngeen mën a am place bu baax ci Grand Théâtre le 9 août dixième édition Nuit du Bazin ak Djibi Dramé nuyul ñu maman chérie bu baax a baax a baax voilà ca ñu dagg suñu gâteau Djibi woyal yaay Aïcha Aïcha sama dogo ko dugg la ñu wayal yaay ndeysaan ndeysaan yee dagani dagani madamu babu eh dama def li ci dagani gàcce mimalo fula do mɔgɔ min bɛ miiri fula mɔgɔ min bɛ taa si fila mɔgɔ min bɛ jali sɔn fila jalo ni jagitɛ siri bɛ ni sangare manamu babu manamu babu. shimar salala kanu nema dugukolo dala kanu nema ala de nana ka sebani mamadu kanu a den a dɔgɔ a kɔrɔ tɛ a ye sankolo fɛnsɛ a fɛnsɛna kanu ma ka dugukolo fɛnsɛ a fɛnsɛna kanu nema madamu babu joyeux anniversaire la mandiñe alake la mandiñe dege sumeer yaa bëgg jibi darame yaa tera jibi darame yaa sanga jibi darame olof ñeli ne na ku la bëgg mu sonal ku la bañ na pal na la way yoo madame babo doomu lay sere bu jàlloo zay lay sere Barigada, da da di barigada. Eh, ni ko arete, ma joyi, bu ma joyi. non non non non j'aime pas j'aime pas ça j'aime pas